nguur gu Sénégal daal na deltu gannaaw ci tex aslëf ci payoor bi nga xamante ne jàngalekat yi nekkoon ci grève moom la ñu nekkee woon gouvernement bu Sénégal daal na décidé annuler lenn ci lu mu bëgg jël ci salaire u jàngalekat yi nga xam te ñoo nekkoon ci grève loolee nag direction de la solde moo ko daal di siiwal gouvernement bi nag ngir tànk yu mu taxaw ngir daal di indi jàmm ci ëttu njàng ak njàngale mi ak itam fexe respecté accord yi mu signé ak organisation syndicale yi loolu tax gouvernement bi fu mu ne dellutu na gannaaw ci li mu namoon di teq aslëf ci payoor ñii di jàngalekat yi nga xam te ñoo nekkoon ci grève te lenn lu ñu war jël ci seen xaalis payoor googee waroon na feeñ ci weeru ko avril 2022 gii léegi nag laaj bi nga xamante ni samp nañ ko ñoom jàngalekat yi mooy ndax lii nga xamante ni jot nañ koo jël ci weer yële wees ndax grève gi tax ba xam ndax danañ leen ko delloo